والخيل والبغار والحمير لتركبوها وزينة ويخلق ما لا تعلمون بوكو جولي دي نيغي لين نوي دي لان سانت نيواتا سن اميسيون بين دوبي غران بري سينيكو خامغي ني لو 19 مي موم موي جور بي غنا ماكي سينيغال جامونو جي لو 19 مي ñuy woo waa Sénégal yëpp ñu ñëw Grand Théâtre pour màggal alxuraan karim waaye laataa loolu nag foog ñu def li nga xamante ne mooy musaabaxa bi foog ñu def li nga xamante ne mooy concours bi depuis démb ñu ngi fi nga xamante ne mooy institut islamique xale yi di tari lu tolloo 45 xale démb quinze tari woon na tey quinze tari na 45 yooyu nag juróom nañ ci tànn bu ëllëgee ñu màggal alxuraan fële ci Grand Théâtre juróom nañ ciy tànn kon nag ñu xool xale yi tey nanu ñëwee ñu بالله من الشيطان الرجيم إن الذين جاءوا بالإفك عصبة منكم لا تحسبوه شرا لكم ۖ بل هو خير لكم لكل امرئ منهم ما اكتسب من الإثم والذي تولى كبره منهم له عذاب عظيم أطيعوا الله ورسوله ورسوله Ah, gis nga def nañ ñetti fan yi concours bi tey la jeex ah, ban appréciation nga ci am. xanaa kontaan rek euh, ci li nga xamante ne mooy concours bi ni ñu ko organisé ndax ah, lii nga xamante ne moom la sëñ ablaay ja def defal ko jullit yi ci Sénégal yëpp defal ko jullit yi ci àddina yëpp ndax gis ngeen tey am nañ tey ay gan yoo màgg yoo xamante ne dañoo ñëw tey fekk si li nga xamante ne mooy euh, tari alxuraan bi kon du ñu def lu dul kontaan en tant que jullit du ñu def lu dul kontaan en tant que ndey daara mais en tant que koo xamante ne dafa gëm téere bi te di liggéeyal euh, alquran di liggéeyal daara. noo tudd ak fan nga jógee ban région. maa ngi tudd Yaa Diop Seye jógee région de Louga di jàngee daara Mariam Ibnata Imran. yaa ngi soo a ñëw si concours bi. waaw concours bi ren laa ñëw. naka nga gisee concours bi organisation beeg ak nekkin beeg concours bi déroulement bi naka nga gise ah concours bi macha allah neex na fi ñu dalal baax na organisation bi lépp mën na maa ngi sant yàlla bu baax organisation bi lépp man na. nan nan nga tudd ak fan nga jógee. Mouhamadul Amin laa tudd Kaolack laa jógee. naka nga gisee concours bi. concours rafet na lool xale yi seen jàng yi neex na ñun ñëpp ñu sant ñëpp ñu ngi gërëm ñëpp. mbokk comme ni ngeen gisee gis ngeen xale tey ni mu ñëwee nest ci jàng alxuraan bu mucc mokkal bu bu leer nañ.

سأنبئك بتأويل ما لم تستطع عليه صبرا